asalaamaaleykum man maa ngi tudd maam Sele Ndiaye tey nag dama leen di indil njàng mu tudd nàmm déggin ñu jagleel ko élèves yi nekk ci ñaari at njëkk yi ah, xale yi na def tey nag dañoo nekk ci suñu waxtu lépp ci suñu fukk ak juróom-ñeenteelu jukki jukki bi nag mi ngi tudd picc yi ak bukki ndax xam ngeen picc aha Musa aha nga ni picc mooy yii naaw te am laaf waaw kay dañuy rëy wala dañuy ndaw waaw te ñu tuuti waaw kay ndax xam ngeen bukki assu nga ni bukki mooy nekk ci àll bi te di lekk malay wax nga dëgg kon xam ngeen ay picc la nag ak bukki waaw leen góor waaw leen kumba léegi nag suñu léew bi ci jukki bi ànd na ak nataal dama bëgg nag ngeen xool nataal bi ay ca nataal baa ngi nii léegi nag damaa bëgg ngeen xool ko acca xool leen bu baax acca Moussa xool bu baax ab Abdoulaye xool leen acca Fatou El Hadj xool leen waa bor bi ay ay acca léegi nag xool ngeen nataal bi ba yeggal ma laaj leen ba xam lu ngeen gis acca paskaal loo gis ci nataal bi xool bu baax aha nga ni gis nga ci nataal bi ci kaw bukki wax nga dëgg Pascal bukki mi ngi ci awa nga ni bukki nga gis mu nekk ci lan ci fu mel ni àll àll bu am lan àll bu nekk tool waaw wax nga dëgg awa Malik nga ni gis nga bukki mu ànd ak ay picc suñu jógee ci nataal bi dama bëgg ngeen déglu bu baax ma jàng jukki bi ma nettali leen léew bi su ma leen ko nettalee ba noppi ci ma jàng jukki bi dinaa leen am laaj bi ma leen laaj léegi nag dangeen ngeen teewlu bu baax a baax ma jàng jukki bi picc ak bukki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 ñu mën a teel a jóg fa ñu dëkk dafa sori lool bés booba bukki nelawul daanaka naka la tëdd tàmbalee gént naan sunu kër sunu kër jóg leen bët seen na picc yi tontu ko bët seddagul tëddal mu tëddaat waaye naka mu foraate bët rekk tàmbaliwaat ay geeni nag ñooy kuddi ay yeeni nag ñooy matt mi ay tànki nag ñooy wos yite cin li ay deri mala yu baree bari sunu kër sunu kër ba bët setee mu yeew gisul kenn picc yi nangu nañu seeni dunq dem bàyyi ko fa bukki jaaxle lool ndax mu ngi ci digg